fi ñëwoon parce que dañ ma choisir si euh, artistes yi war a war a prester en matière de cypher cypher hmm, si branche ou euh, révélation yi so voilà y a moi et d'autres artistes comme Blem Pro euh, Julio Beng ak Kid Veli so dañu war a def benn prestation si cypher biir bu ñu enregistré woon. damay def hip hop damay def reggae afro damay way lépp laay def. hip hop boobu nag ci laay ñëw moo tax ma laaj lan moo lan ban ban ngay def tey lan moo waral tey nga choisir hip hop. bon mën naa ne c'est pas un choix personnel ah c'est plutôt le hip hop qui m'a choisi en fait aussi bizarre que ça puisse paraître la ñëw ci yow. man dama doon way avant ton la chorale donc euh, j'ai j'habitais à Grand Dakar j'ai eu une expérience assez. affûté donc voilà donc ma commencé def ay freestyle sama gars ba nu may mënee rap ba nit ñuy boolee ci Galsen Hip Hop Awards 2022 ak euh, yeneen yeneen affaire yu bëri macha allah jot naa si job ak Fata ak euh, Vibes Empire beaucoup de séjour. <laughs> nangoo aw ci yoon bu lëndëm gudd ñuul ne ru dëbboon may fëgg dënn douze demal Grand Dakar Ndar kenn yorul xol bu ñuul seen écriture yi ñawul mënul dox ci jëm sax tuunu muus <laughs> dañuy foire après di ngeen am prestation peut en live incha allah. tey ñu gis ne rab bi yëngu woon na euh, si clashanteeg yooyu nan nga ko gisee. bon ça m'a ça m'a mais je trouve que c'est très bien parce que rab tey mënul am sans clashante. et je trouve que le rap féminin n'est pas très mis en valeur rabu jigéen ñi jigéen ñi y a juste quelques artistes yi nga xam ne ñoom ñooy def différence bi fii nii mais voilà du moment où euh, maintenant ñooy gis liggéey jigéen ñi si kanam au devant de la scène on fait des cyphers avec des gars et des filles donc ça commence vraiment à avancer quoi et ça fait plaisir je pense jigéen ñoo war a clashante mu gën a neex mais parce que jigéen ñi taluñu ko te promets seen wax seen wax bu bëri eggul si rab bi mais bon man boog maa ngi bokk si ay concours honnêtement yoo xam ne j'ai affaire à des hommes et voilà damay taxaw clashante ego trip ak ay góor maa ngi bokk True Flow maa ngi bokk aussi euh, Flow Up maa ngi demi finale so voilà. foo bëgg jekk ci rab bi. rab bi bon man rab bi peut-être c'est juste une branche boo xam ne maa ngi koy dund actuellement te mënu ma ko bañ mënu ma si dara parce qu'on a fait des études mine de rien j'ai un je me dis que tôt ou tard way musique la daal en général rek voilà musique la en général. ok leen di fay bu baax donc oui tur bi Junior merci beaucoup c'est gentil. d'accord incha allah parce que aussi suñu grand bi tamit na ko war a ah. si la bokk euh, beneen artiste ak ñu si ginnaaw tam Blem Pro je pense war ngeen ko xam. Euh, bi ngay xëcc benn caméra di ma mais defoon naa ni euh, du yegg si fii mais nit lu mu gëm rek xam nga ñi ci suuf ñooy fekk ñi ci kaw te boo gëmee rek day baax maa ngi nuyu tey ñu war a euh, ñu buggoon xam tey lu waraloon sa teewaay fii nga xam te moom mooy ci raaya mais xam nga raaya dafa nekk benn concept bu original boo xam ni Sénégal. plateforme bi fi nekk gars yi di ci surfer ci kaw muy les artistes moo xam musicien moo xam euh, beneen registre boo nekk nga liggéey ñu lay wax jërëjëf merci dafa extraordinaire ba nga xam ni c'est un concept boo xam ni ça fait six éditions cette année que man ma koy euh, fekkee donc maintenant gën na yaatu boo gisee par exemple tey niñ ko conceptualiser dîner de gala la ensuite également ubbeeku ci la sous-région woo d'autres artistes ba pare jël un artiste mu def le live su ko defee ku ci nekk da nga ciy gis sa wàll ensuite également ñu ñëw ci les nominés ñëw également ci ñi nga xamee ni ñoom ñooy Euh, jël les trophées initiative bu nice la boo xamee ni lu ministère de la culture euh, les conseil culturels au palais ñëpp dañ ci war a jàpp su ko defee mu bokk ci agenda culturel bi parce que ay raaya la donc dañuy ràññeetle ñi nga xamee ni ils ont bien travaillé. mais bëggoon ñoo xam ci tànneef naka lay demee parce que ñu si bëri comprendre ñu ñan la ñuy ñan la ñuy tànn ba indi leen tey ci Dominique. bon tànnin bi tamit je peux pas te euh, grand chose parce que bokkuma ci commission bi bokkuma ci ñuy tànn fekkewuma fu ñuy tànn damay gis rek ñu def benn liste comme quoi que ni ñii la ñu tànn nous suñu nekkin daf fi nekk pour ñu ñëw xool réellement euh, déroulé bi mais peut-être am na ñenn ñoo xam ni ñoom ñoo xam nu ñuy tànnee ak euh, euh, yan moment la ñuy tànn. ñu gis évolution bi nga xamante ne bi am na ci raaya bi est-ce que tey jotul ñu décentraliser ko parce que tamit ñi ci région yi tamit ñoom ci lañ bokk te soxlañ est est-ce que jotul benn année ñu jëlee ko fii yóbbu ko ci benn région mën na nekk xam nga euh, li ñuy wax euh, yaatal boo démarré benn affaire ensuite maintenant par exemple le grand bal de Youssou dama dafa mel na ni New York lañ ko njëkk a mu dox ñu yóbbu ko fi nga xamee ni moom mooy euh, Euh, Paris mu nekk Bercy mais ensuite da ngay gis dafa koy delloo si dakaar ba finalement yaatal boobu war na mën a am tamit ci beneen conceptu télévision beneen conceptu euh, programme raaye yi mën na dem Saint-Louis wala mu dem Ziguinchor ba mu dem sali ba mu dem Mbour mën na dem fu nekk parce que ay sénégalais ñoo ko seex ay doomi Sénégal ñoo ko seex maintenant ñi nga xam ni ay gan lañu te ñu nekk dans la sous-région ñu leen di invité ñooñu également mën nañ leen Euh, invité ba pare découvrir loo leen également suñu cher Sénégal moi je pense que c'est une bonne idée que ñu xalaat ni dañ ko war a décentraliser. père nee tey Raya xel day dem ci musique. Mhm. tey fan la musique en tant mais musique sénégalaise mu ngi dem yoonam parce que euh, ñu mel ni ay Youssou Ndour Omar Pène Baba Maal Ismaël ñoom ñoo fi nekkoon nga gis ni am na beneen génération ñoom Alioune Mbaye Nder Ndiow. ñoom Fallou Dieng ñëw ensuite nga gis ñoom Pape Diouf tey ñuy wax ñoom waali ça veut dire que ni euh, nous les animateurs ou les présentateurs de télé ou de radio euh, dañ daan fok rek fok ci benn musicien rek di dóor Omar Pène Ismaël Lo Youssou Ndour Baaba Maal mais tey tu as le choix mën nga def euh, benn playlist boo xam ne dafay diversifier da nga ci am registre yu bare rythme yu bare feeling bu bare boo xamee ni fii la jéggaani wuñ ko donc xale yi tamit ñu ngi sob di dem di wuti ay beatmaker ñuy changer affaire yi di ko def à leur euh, niveau à leur euh, façon donc moi je dis que ni euh, la musique bokkuma ci ñuy wax ni dafa dellu ginnaaw dafa jëm kanam maintenant nag ni koy defee loolu la ñu war a xool parce que léegi am na jumtukaay am na ay jumtukaay yoo xam ne ñoom yu sundur amuñu ko woon te tey ba léegi ñu ngi fii ñii am nañu yeneen yu ko ëpp. donc ñoom niñ koy defee loolu moo jar a wax mais quant à bi ndax mi ngi dox jóge na ci A mi ngi ci Z. maa kay koy dolloo bu baax alhamdulilah. naka yëngu ñu ngi sant yàlla alhamdulilah. ñu ngi sant yàlla bu baax. ñu bëggoon xam la ma waraloon sa teewaay ci raaya bi. bon déjà suñu présence pour lenn rek moom mooy wuyu si invitation bi ñu wax euh, pour contribuer aussi par rapport li nga xamante ne moom la moom la gars yi muy lu rafet ñu koy rafetlu déjà. et puis ñu nominé ñu aussi si yenn si secteurs yi ñu ñëw wuyu si nomination boobu et puis euh, voilà di wax naka rek dañoo jàpp ne ne fête la bu ñu war a ñëw ñëw nañ ci jàpp ne du mission du plutôt du compétition mission la ñu ñëw participer ko comme tout le monde. rayaa bi tey euh, actuellement boo am la doon. don dolli parce que depuis loolu gis nañu mi ngi avancé mais tey boo amoon loo ci ñaax loo ciy dolli tey lan lay doon. franchement man xaw ma dara ma parce que gis naa ne que tey édition bi nii ute naa yeneen édition yi franch nga gis ne que y a une équipe très dynamique bu ci nekk buy liggéey boo xamante ne franchement ils sont déterminés. et man aw ma dara lu leen wax am moins que di leen yokk ñaax di leen ñaanal yàlla fu ñu bëgg a yegg ñu yegg fa franchement tout est parfait. Athie Ba fu ma soxla si musique sénégalaise ah, maa ngi def samay affaire de temps en temps ma génn de temps en temps ma laaxatu et puis di am euh, di di toujours ñi nga xamante ne ñoom ñoo ñuy consommé di respecté toujours suñu mbokk suñu mbokk ñi nga xamante ne ñoom lañ ko bokkal et di avancé si lu ñu nekk rek. xale yi nga xamante ne tey ñu ngi soog a dugg ci musique yan ban conseil nga leen jox parce que gis nañ ne léegi te yi actuellement dañuy dugg boo dugg ci loo xamante la. ñoom ñëpp loolu laa la wax musique du compétition mission la parce que mission bay tax ngay accomplir li nga bëgg ci lépp li ngay def mission bi mooy tax nga am benn assise mission bi mooy tax nga concentré wu mission mooy tax nga xam fan nga jëm mission moo tax nga gagné mission mooy tax nga am xaalis du leneen